ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi a a xam li nga xam la rek. naafila juróom-ñeenteel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñeenti rakka rakka bu ci nekk mu jàng faatiha benn yoon. jàng tabbat yaddaa abi lahabin ñetti yoon jàng xul huwallaahu ahad benn yoon dees na ko ca bindal tuyaabay muñkat yépp ak santkat yépp te dina mel ni it ku wàcce ab kaamil te des na ko ca bindal tuyaabay ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yoo xam ne da ko yendoo woor fanaane koo julli te des na ko ubbil juróom-ñetti bunti àjjana yépp